voilà ñu ngi nii jàkkaarloog Fou Malade euh, fu ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. li waroon sa teewaay fii ci xeex bi ngeen nar a xeex pour libérer Nit Dof. sama teewaay fii c'était pour euh, euh, soutenir sama mbokk rappeur muy Nit Dof Mor Talla di rappeur bu ñu respecté di rappeur boo xamante ne liggéeyam lu am solo la ci ndaw ñi. lu am solo la également ci réew mi donc looloo taxoon ñu ñëw fii. te jàpp nañ ni effectivement arrêter un artiste comme Nit Doff wala arrêter un artiste tout court c'est une tentative de de confiscation de la liberté d'expression te également c'est une euh, tentative de de d'étouffer l'expression de l'artiste. léegi gis nañ ne rappeurs yi mobiliser woon nañ parce que comme niñ ko defee woon ci kilifa ak euh, Thiat. bi moom dafa mel ni mobilisation bi dafa gën a taxaw lan ngay wax ci loolu. waaw gisagu gisaguñu dara rappeurs yi euh, ñu bëri ñu bëri yëgaguñ ko sax mobilisation bi tey lii nga gis mais di nga mën nga gis lu jéggi lu jéggi lii parce que effectivement c'est le hip-hop qui est touché c'est le hip-hop qui est touché donc euh, c'est pour cela nga gis fii euh, rappeurs de différents groupes de différentes localités teew fi tey pour naqarlu son arrestation. mën nga ñu wax seen plan d'action ci lan ngeen jëm bu bu ngeen paree ci conférence presse bi. je pense que pour cette question il faut voir avec euh, avec euh, avec effectivement son équipe son équipe waaw. en tant que rappeur nit dof li mu def noonu ci posam ñu jàpp ko nan nga koy interpréter. waaw aw ma ci benn interprétation parce que pour man il s'est exprimé et il s'est excusé nit bu waxee dara wëlbatiku ñëw jéggalu kooku boo ko arrêté yow da nga bëgg a yokk xar mi karaw ku wax dara. wëlbatiku ne li ma wax ëpp na maa ngi leen di baalu àq kooku jara baal àq la te aussi li ñu chef d'accusation yi dafa warook effectivement li nga xamante ne moom lañ dégg ci live bi parce que bu buñ ne appel à l'insurrection menace de mort désobéissance loolu yëpp amu ci mën nañ wax ni nag am na injure publique euh, c'est un dossier chargé qu'il faut décharger parce que décharger décharger dossier boobu mooy jàmmi réew mi